voilà mbokk Samagal TV mbokk internet yi ñu édition CEP cercle des éleveurs de la banlieue tey ñu taxaw ci box boo xam ne macha allah euh, champion bi fi nekk macha allah dina présenté wu léegi ndax xam naa ni ñu bëri xam na ko ci élevage waaye am na ñoo xam ne ñu ngi nekk si Samagal TV di ko doon ko réclamé tey nag occasion la muy le procureur Issa sama Diop. waaw asalaamaaleykum waa Samagal Samagal TV vraiment di leen nuyu di leen sant. di euh, kontaan si li ngeen ñu recevoir tey. pour wane suñu suñu suñu liggéey ah. macha allah donc di leen si jàpp ci jaajëfal ah. macha allah merci. waaw maa ah ñu lay fay siyaare bu baax baax baax. macha allah euh, grand yow nu ma leen laajte Bergerie Cap si euh, ñu koy dégg ci liggéey bu am solo. Euh, ñu gis ay sujet yu am am doole yoo xam tey génnee na fa na ci élevage bi def ay ay résultats. Bergerie Cap si depuis kañ la ak lan moo la motivé ci. non Bergerie Cap si nag xaw na yàgg nag parce que man élevage bi xaw maa ngi si bëgg a yàgg. Maintenant, c'est mon premier là duma manque en 2006 laay am son point là mais doon naa yàq quand même mais lépp laa doon c'est quoi mais laadum moom 2006 ba léegi kon depuis 2006 ma ngi maa ngi yàq ay donc euh, donc euh, Cap si yàgg na quoi. ok euh, jar Dakar mais ba ma nekkee fatigue aussi doon naa fa na amoon naa fa benn bergerie bu il y avait beaucoup de moutons. donc ba ben ñibbi seewaatee aussi j'ai continué. ok waaw ba léegi daal maa ngi est-ce que mën nga ñu revenir rek un peu ñu résumé rek. quelques bêtes au camion ni jaar nañ fa ñu xam waaw ba waa Bachir jaar na sama kër. fa la fa la fa Kaya Kaya sama kër la juddoo. Bachir sama kër la mu juddoo. Bachir Bachir ba fa ñëwee ma jëlee woon ko si mu ñëw def tour. Uh-huh. si euh, naa plein de ah. xam yu bëri Il naa leen. Uh-huh. Euh, maal yu juddul également. Uh-huh. ay doomu Bachir ay doomu Galactique.

foog naan fii mooy limite bi quoi. ok waaw mais man je me suis rendu compte que man xamatuma daal. xamatoo ah, xamatuma ah, affaire bi amul limite. non deug la nag. amul <laughs> limite xamatuma xamatuma. record yi kenn xamu fa la non xamatuma parce que quand je vois fii nii euh, édition bi ay espoir yu def ay 114 ak. Uh-huh. ay ay agneau yu def ay 102 uh-huh. man franchement xamatuma quoi. non deug la y' a pas de limite ken xamul. kenn xamul kon dal mën nañ ni xar dal mën nañ ci xaar lu rek mën nañ ko xaar fu ne. mën ko xaar parce que aussi c'est le fruit d'un travail hein nit ñi gars doon liggéey hein

histoire bi euh, surtout Saloum Saloum la. parce que papam doomu Picasso la. papam Moguet si la tudd. ok histoire bi nag juddulu ma ko. d'accord waaw si si maam Góor si la moom ko baaxee woon. ok maam Góor si la si moom laa ko jëlee mom mom moom papam sax d'ailleurs. ok ba muy am euh, man ba ma koy repérer amul woon sax 1 mois. ma ñëw gis ko mu neex ma ñu waxale jubóo ma bayiko ba mu namp ba fer mu livrer mako à 3 mois. ok depuis loolu mi ngi sama kër actuellement elle a 16 mois. Ah, vraiment, elle a de bonnes mensurations. D'ici, profiter pour remercier aussi qui m'a Parce que aussi, l'idée est mom là. Croisement, mom m'a connu. Man, il y a règle à def. Il y a bon mouton l'iné Mais le croisement, mom, mom là. Mom vraiment, mom c'est un peu mérite pour moi. Ok, ok. Mom c'est pour moi. Kon, vraiment, nous tu as dit, nous avons fait une présentation. Quel est le message? Le euh, message, c'est d'encourager les élèves à nous gogorlu. Xamni affaire bi mom liggéey la quoi qu'on dise liggéey la passion mo ci dugaloon ñu bëri mais maintenant je me suis rendu compte que les gens nit nit ñi gis na ci nit di si tedd di si am kër di am lu ne donc ils la donc liggéey nag da nga koy respecté. da koy respecté liggéey moom soo ko lu dimbali la loolu loolu laay encouragé donc ñu gën persévérer gën a def ay croisement yu et je pense que day dem si kanam rek quoi. kon ñu naan xaar laadum dafa cher euh, comprendre prix est-ce que. mais laadum laadum mënul yomb ku si nekk gis ni ngay

mbégte leen ndax am na ñeneen ñu bëggoon te suñu borom joxu leen wax dëgg yàlla am nañ ci contentement bu baax a baax ah, di ko remercier nag aussi bu baax di ko féliciter parce que euh, yëf yi moom vraiment félicitations yeeg appel yi bari na tey bi tax mu gën a bari mooy affaire bi mérite la parce que ku toog ci naan maa judd lu kaya te avant kaya ay xara nga fa kon donc xam ni loolu yàgg na te it li naan euh, rampé rampé na bu dee mbappat it mbappat na ndax fekk am na xar yoo xam ne tey jii fi mu toll da ngay génn fekk lu pare nga dem jëndi ko mbaa ilaa nga liggéey ko te nag moom daanaka daa toog liggéey xar yooyu. waaw waaw daa toog liggéey ay femelles yoo xam extra. te aussi ni mu koy liggéeye ni la koy mën a joxe. xam nga ndax de fois mu joxe ba ma xaw ba ma téye loxoom. waaw xam nga léeg-léeg mu joxe man bii moom nekkul war a génn mu nag lépp mënoo ko téye. parce que élevage partagé la man aussi va partagé la. mais am na loo xam ne nag jàpp ne mu maanaam lu baax la ñuy joxe. ndax boo ko joxee ñu jëm. ginnaaw ci lu baax loolu la ñuy kon donc xëy na ci la ko yàlla fayee ba maam góor si la jox ko lu baax mu mu mais nak am nañ ci mbégte bu baax baax baax. may may may may souligner reconnaissance bi tamit parce que sa mbokk éleveur jox la xar gay mu gagné mënon nga ko am na ñoo xam ne nañ dëgg dëgg lolu dëgg seen mais dafa léral ni liggéeyu mam gor ci la kon lolu tamit dafa bok ci élevage. loolu mooy wane loolu mooy générosité bi nekk ci ñoo xam ni tey ñoom euh, affaire bi dañ ko gëm jàpp ko compassion euh, métti luñ ko. te ça c'est c'est important. waaw loolu dëgg la parce que. Ah, euh, doomu aadama moom daa war a ñàkk ci ñaan ndax ci ñaan wut am ci doomu aadama te mooy liggéeyu maam góor sële la tamit taxul mu wàññi dara te aussi maam merci te maam góor sële maam mi ngi woote di félicité te bi muy félicité tey jii ma maa ko woo man di ko félicité mun ma non non man parce que liggéey bi yow la maanaam doom ji juddu maanaam CAPS moo liggéey doom ji mais li xar bi maam góor moo ko liggéey maam góor na ma xar bi mbote la même pas un mois ngeen xool ko tànn ko kon donc am ngeen lu ngeen ci gis leen bokk loolu kon tamit yéen am na loo ci gis voilà mu ne ma tamit xam-xam la mu fer ngeen jël ko ci crois mois moi, mu agsi fii mën a gagné kon donc bu ñu ko du gagné c'est vrai dañ momit dafa ñak ñaan mais aussi tamit momit ñu ngi koy remercier bu baax a baax di remercier wa CAPS gépp di remercier tamit SFB di remercier Khadim Thiam Pape Gueye Medina di remercier vraiment mboolem ci nit ndax Kapsu dafa bari sopp dafa bari soppee boo demee Kaolack noonu lañ ci mel boo demee Fatick aussi tamit noonu lañ ci mel waaw waaw am na ñoo xam ne mën nañ ñëw a état la voilà euh, bi te aussi tam procureur yi desaan dama a dégg benn kàddu bu am solo après booy di ko ndaxte dañoo dem Fatick ñu invité ko Fatick ndax jaaroon na fa mu nekk fa invité te fu ko mënut a invité lu mu sori sori day déplacé ay xaram. waaw ñu dem Fatick ka ñëw maanaam ñi ñëw ñu nuyoo booy ñëw. ça va na ngay def ça procureur mu ne non noo non procureur amu fi ay éleveur moo fa am waaw kon donc moom dara jot joo ko yàlla jox moom jël na ko teg ne daal di àndaat ak ñoom amuñu jëlee yëpp loolu enseignement bu doy waar loo xam ni gars yi xamuñu ko te loolu loolu loolu ëpp na ay macha kon grand dama bëgg rek moy añoo bi. Mhm. ak li nga indi ak espoir bi ñaata moo la ak moom mooy ñaata euh, moom mooy kan. ah espoir bi madame sila ah. aussi tamit euh, jabar ma ngour sila nga tuddé ah d'accord ok mo am 16 mois. 16 mois daat fi ñëw té vraiment nak euh, indi fi raccord yo xamanté ni dal na xel am na ci mbégte. macha allah ndax ki bu ñëw tay ji def autour 103 vraiment mbékté la. ndax adulte tok na adulte bu ko amul. waaw

doomu ceeb bi tamit aussi tamit dañ ciy remercier tamit Xaadim Jaam remercier ci Omar Faye bu baax a baax. ni ni muy def. lañ ko fa defal. ndaxte d'une fois may croisement mu tëb ndax moom mii day indi am xar indi kër ga. day ma ko sax ah kii tëbu de confirmé ne mu waa nañ ko bàyyi bañ ekku ko jox ko borom. lu xar yi bare bare mu ni awul parce que ki déplacé xar indi ko boo ko delloo te jàppul mor ko indiwaat. day métti day métti. donc su bi mu fay ñu éco ko nga kon élevage partage indi xar mu si mu am doom mu nàmpal boo ak doom jox la kon donc partage vraiment ouverture voilà aussi de millions dal des fois ma toog ah Issa mais est ce genio xar hari génn yow xàmmee nga xar yi ma si ah, lim lim li ko ak ak bii mu ah c'est vrai boobu diw laa ko joxoon te it nag day ay xar yoo xam ne la mais jàppale mu des loolu. macha allah mu des loolu. nga ne añoo nga am ñaata bi 12 mois. 12 mois 12 mois ak kan noir fa gis. ah robe noir bi. waaw robe noir bi moom euh, surtout que Seexu Kaya. parce que moo jur maamam. moo jur maamam surtout Kaya la. ok beneen bi su mag bi. kor nu ñuul ah doomu Safi la. doomu Safi doomu Sénégal. macha allah waaw ñaari doomu Sénégal boole leen. ñu doomu Sénégal boole ko ak Boy Thiam. Euh, doomu sami famille du wàcc beneen ba kon boobu bu sikki boobu bu weex boobu kon yu gàtt yooyu bële euh, bële tamit euh, recrutement bi ñu def tey ci aas aas moo ñu ko joxoon mais muy aussi aas moom itam noonu ñu ko remercier parce que aas dañoo joxoo añeel mu ñëwaat fi ñëwaat indiwaat fi lu extra ñu demaat moo joxoon ñu ko grand aas aas aas aas aas aas bi aas maalo

ba gis loo xamante nii aussi yaakaar nga ni man na li li nga yoroon man kon jël loolu day jaar ok loolu taxit ñu recruter ko di ko ñaanal yàlla moom lam fa bàyyi barkeel di ñaan suñu borom lim ñu joxit barkeel ba moom mu xajaat ci ci kàttanu yàlla kontaan naa euh, exposition bi rafet na euh, macha allah xam naa ni moom li ma bëgg a wax ak Baye Seri Kapsi il faut que je vienne ma ñëw bergerie non l'ol mënut a ñàkk. incha avec le numéro de a numéro ah numéro de 77 557 29 99.

zéro faute wax dëgg yàlla di ko encouragé di ko ñaanal yàlla vraiment li mu sumb ni mu am si ndam quoi te yàlla dina ko sama incha allah kontaan nañ jërëjëf